الخدماء فوق كل رقبة من زار الخر كل من منخبة محمد مثال لم يأتي فيما مدى أبدا لا يأتي سبدا رب المصطفى والنبي ورسول والقليل وهو الحبيب والإمام والدليل برأه البديع من خير جمال وثأنه القدوس عن خير كمال قول النبي المنتخى محمد خير الورى المطار عند السمد قول النبي المنتخى محمد خير الورى المطار عند السمد auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barki borom Touba wajal xuroo fii fawqa kulli amali salxo ya man li yaxudu amali mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu fii ci Touba Tivaouane li waral jataay bi nag mooy bis bu mag bis bu rëy bis boo xam ni eh, dañ koy fàttali rek waaye leer nañu kenn ku rek yaa ngi ko bàyyi xel mooy bisu alxuraan ak xasida bi ñuy def at mu nekk fii ci Touba Tivaouane ci kër Serigne Touba gi nekk fii ci Touba Tivaouane bis boobu fas ne koo def ni ñu ko daan defee maanaam ni ko Sëñ Tuubaa bëggee rek bu ñu xëyee wàcce alxuraanu karim jàng ay xasida def ay salaatu defal ay bernde eh, yendoo ko ba ngoon eh, ginnaaw bu ñu julee timis ba noppi sëñ Mamoor Sam moom sëriñ Fallu ñëw ñaanal mbooloo mi kon nag ñu ngi eh, tàmbali liggéey bi ngir jox sëñ ki nga xam ni mooy jëriñu liggéey bi yëpp di sëñ Abdou Karim Ndiaye di jëriñu Matlabul Fawzayni di kuréel gi nga xam ne moo ëmb mbooleem daayira yi nekk Tiwaawan ak li ko wër bu defee mu dugg ci wootee ci ñi nga xam ne nag ñooy waa ahlu xasida ak waa waa waa extérieur ak mboolem fu jànkatu nekk ci biir réew bitim réew kon ba Abdou Karim Ndiaye bisimilah aousubillah bisimillah ini waliyallah bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwwata illa billahil azim asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ziyaare ñëpp di jégglu te jég di ñaan suñu borom borom jégal di ñaan sëñ Muntaxa suñu borom yàggal ko fi lool te wérul ko mu àggale naal yi mu tàmbali yëpp dañu ñu ànd koog moom ba tàmbali yeneen naal ah ñu ngi ci jub na bis bu tedd muy bisub xasida bu Touba Tivaouane Matlabul Fawzayni war a nekk di 17 mars incha allah ci kër Sëñ Touba. ni ñu ko baaxoo defee nag di ko ànd ak kuréelu xasida yii ci biir réew mi ak bitim réew noonu lañ ko fas yéene defaat itam ren incha allah kon ñu ngi ci woo waa diwaanu ëhlu xasaayit ci biir réew mi ak bitim réew fu ci waay mën a nekk rek ñu ngi la ci woo. nañu daan teewe ci seen bis xasida di ñaan ngeen teewe noonu ci suñu bis xasida di ci woo itam jàngkat yi yëpp bu ñu limee dañuy jum waaye jàngkatu xasida yëpp xam nañu xam nañu leen nañ leen daan woowe woowe nañ leen loo noonu te leen di séentu di ñaan nag kii suñu jëwriñ ju mag muy suñu am satu suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ci teg sëñ Aline Diop mi nga xamante ni mooy jërim ji ak sëñ Yérim Aw mi nga xamante ni bi mooy euh, coordonnateur bi sëñ Assane Yadd mi nga xamante ne bi mooy trésorier bi sëñ Momar Diop secrétaire kon ñooñu moom ñoo ci jiitu ci woote bi ñi ngi woo ñëpp daal tey séntu ñëpp di di jéglu te jégle jaa ngeen jëf. jërëjëf Baye Abdou Karim Ndiaye kon dañuy daal di jàll ci sëñ Abdoulaye Ndiaye mu woote ci biir dëkk bi ak li ko wër waaye tàmbalee ko ci kilifa yi nga xam ni nag ñoo dereet sëñ Tuubaa yi fi nekk woo leen woo seeni taalibe woo mbooleem képp koo xam ne da nga naan ashhadu an laa sëñ Abdoulaye Ndiaye bisimilah. bisimilah barke borom Touba salaamaaleykum mbokki julli di mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci nabi sallallahu alayhi ñu ngi siyaar bu baax sëriñ Mountakha mii fi nekkal Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul suñu borom guddal aw fanam yokk ak wér ak mbooleem kilifa diina yëpp mu mel ni bis bi nga xamante ni moom lañ daan def moo yegg si waat ñu daan ko def ci ndigalu sëriñ bi bis boobee nag ñu ngi ciy woo sunu kilifa yi nga xamante ni ñoo ci dëkk bi soxna maam Faati soxna maam Awa Mbakke sëriñ Xaadim Mbakke sëriñ Guédé ak sëriñ Moustapha Bousso ak sëriñ Bachirou Guèye xalifa Cheikh Marouba ñu mbooleem kilifa diine yëpp ñu ngi leen di woo bàyyiwuñ ci kenn di ci waale sëñ Cheikh Ndiaye Ndiora ak oustaz oustaz Sène ñoo ñëpp ñu ngi leen ci woo di leen yëgal bis bi nga xamante ni ñi ngi ko daan am ci kër sëriñ Touba ga muy bis boo xamante ni kat bis bi dañ ciy def njàngum alxuraan ak xasida mboolem tund yëpp nag fàttewuñ ci kenn buñ demee fu mel ni PAM ña ngi koy yëgal sëriñ Modou Fam ak mboolem waa dëkk ba yépp ñu ngi noonu lañ ko yëgalee waa Touba kër baakar kër Njobba ci njiital sëñ Moustapha Mouhamad ma fa nekk jàll ba tey ba Ndiaye seel ko kër Magay ñëw ba Ndia ñëw ba Ndindi siinu xaali sanc pir di ko yëgal ka fa nekkal Cheikh Mouhamadou Bator Fall muy Serigne Fallou Fall moom itam ñu ngi ko yëgal ak Serigne Moutala Fall ma nga xamante mooy rakkam te nekk ci alazar bu mu Moutala Mbacke mbooleem kilifa diine yëpp daal bàyyuñ kenn ñi ngi leen yëgal bis bi nga xamante ni moom lañ daan def ci ndigalu Serigne Mamor Sam mi nga xamante ni at mu ne suñu borom dogal na bañ ko tàmbalee ba léegi ñu ak moom ñoo ko ànd di ñaan suñu borom guddal aw fanam yokk ak wér ba ndigal yi nga xamante ni moom lañ ciy jox ñu gën ko mën a jëfe ci barke borom Touba kon foofu la teg kàddu yi di jox Serigne Samba Diop mu yeggale liggéey jërëjëf sëñ Ablaye Ndiaye kon nag euh, kaddu yaa ngi noonu mbokku taalibe yi ñoo ko bokk ñëpp déggandoo muy bis bu màgg boo xam ne at mu ne noo ngi koy taxaw ci kër Sëriñ Tuubaa gi di ko ànd ak mbooleem taalibe yëpp kon nag noo ngi ci wow mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi ah bàyyiwuñu benn daayira la daayira ci daan teew xam nañ seen bopp na ci ñëpp teew te teel a ñëw ah defe naa nag gan boo ko woowee waru la faa jiitu kon ñun ñi nga xam ne ñoo woote ñun ñoo war teel a ñëw maanaam tàmbali liggéey bi su ko defee képp ñoo fekk ñu ko bàyyi ñu benn daayira mboolem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi liggéeyal Sëñ Tuubaa ñu ngi ci wër ñëpp ngi noonu ñu ngi tuubaat baax tey jéegul asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Abdoulaye Ndiaye jërëjëf sëriñ Samba Diop kon mbokki julli mbokki taalibe yi mbir maa ngoog di bis bu màgg bis bu rëy bis bu tedd bis boo xam ni mu ngi jógee ci xalifa général des Mourides sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér jaar ci jëwriñu bii di sëriñ Amsa moom sëriñ Chouaïbou wàcc ci suñu jëru jiit ba Abdou Karim Ndiaye ba ci mbooleem mburu di nekk Tiwaawan li ko wër yëpp bis bi nag dimanche la dimanche le 17 mars incha allah rabbi ñu fas yéene yendoo jàng alxuraan jàng xasida defar ay bernde lépp rek ñaan suñu borom yokk jàmm ji ci réew mi yokk fi xéewali ci barke suñu Tuubaa suñu borom yàggal fi lool suñu Muntaxaa ak suñu Seex Jëmb Fall asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu